Ah. Mamadou Sakho ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ah. ngay secretaire général ministère de l'élevage ñoom mm. ñuy euh, ñoom ñoo yor en charge ñoo teewal état ci organisation journée de l'élevage bi nga xam ne ñu ngi koy amal Daara Jolof le 27 novembre bi ñu bu ñu bëggoon a xam lan moo yees ci atum ren ci édition bi waaw xam nga atum dafa duñ duñ tolloog li ñuy wax mbas bi dafa amoon donc mm. vraiment depuis Mm-hmm. deux mille euh, deux mille vingt et bi. Mm-hmm. donc Sénégal du amoon plan Sénégal émergent. Mm-hmm. donc normalement euh, bi ñu ko amee ñu toog saytuwaat ko. ni il faut ñu dox dox bu gën a bari. donc président adopté lu lu ñuy wax le programme. ajusté accéléré du plan Sénégal émergent donc vraiment deux mille dix neuf deux mille vingt pour ko jéego yu gën a bari léegi mu am yi xam ni ñoom ñooñu ciy xaar nga xam ni lii duñ ko war a def moom mooy li ñuy wax souveraineté alimentaire li nga xam ne souveraineté alimentaire moo xam tous les produits de base moo xam ceeb la moo xam dugub la moo xam yàpp meew kon ci la bokk xam nga kon mm-hmm. souveraineté alimentaire yàpp ak meew ci la bokk mm-hmm. donc boo moo tax bi ñu ne bu moom bi mu joxee ndigal donc dafa thème bu ñuy liggéey bi moom mooy euh, entrepreneuriat xam nga entrepreneuriat mooy euh, entrepreneuriat mooy loo xam ni da koy entre pour am fu génn ci dara. Mm-hmm. ak investissement donc xaalis bi si bi. Mm-hmm. pour ñu def benn élevage bi nga xam ni euh, vraiment day mujj ayib ba pare yàgg. Mm-hmm. xam nga kooku loolu dafa ëmb lu bëri. parce que da ni bu mucc ayib yàgg. te ñu nekk ci changement climatique mooy da nga a def dara li nga xam da nga mën a ba pare production boobu nga fexe. ba euh, euh, lépp lu jëm ci environnement nga nga saytu ko ba dara bañ a yàqu. Mhm. Sénégal du am ñetti système d'élevage loolu moom sax xam nga dafa am luy wax système d'élevage pastoral comme tey jii fii ñu nekk ci daara nga xam ni sàmm caawa la. Mhm. c'est que gis tey jii ñu koy def lu ay unité pastorale unité pastorale ay organismes éleveurs yi nga xam daal di gën utiliser ndox mi gën a utiliser ñax mi. gën a mën xeex ak daa yi ba nga xam ne leen fay def dina gën a yokku dimbali leen également ci ay magasin d'allaitement bétail dimbali leen ci ñuy xeexee mm-hmm. nga dem li ñuy wax système élevage agropastoral nga xam ne foofu mbay mi ak càmm gi dafa lëkkaloo mm-hmm. foofu naka nañuy def ba may bi ak càmm gi ànd ba benn jafe-jafe doom ba nga xam ne bis bu ñu bàyyee ba wàcc a ah, lay génne ca mbay ba nit yi lekkal leneen la nga xam ni nit ba du ko lekk bàyyi mi moom mën na ko soppali yàpp wala meew. Mm-hmm. beneen bi ñu ngi wax ñu ngi pélage urbain tey soo demee ci dëkk yëp mm-hmm. su gannaaw dëkk yi gis nga fa ay élevage yu mag yi nga xam am surtout Dakar yenn région comme ay Fatick Kaolack Diourbel mm-hmm. Mbacké donc yooyu ñu fa naka lañ également. ba élevage yi nga xam ne duy soxla lekk soxla naan da nga ne ba ñooñu am lekk am naan ba pare respecter environnement bi. Mhm. donc loolu nga xam ne duñ ciy liggéey bi nga xam ne donc fenn fu nekk lan lañ fa war a def nag ba vraiment la mu doon jur. Mhm. gën a jur gën a parce que défi bi lool noonu am parce que ñun chaque dañu gis suñu population sénégalaise quand même fukki million ak juróom-ñaar lañu. Mhm. ba et que pays musulman lañu. c'est que duñu jël xar yi xayma nañ ko ci juróom benn million. ak euh, xëy na en dina juróom ñaar millions mais te kat da a jël dafa am ay xar yu góor ay xar yu jigéen. Hmm. te comme lu may wax ñun ku décence bu am rek il faut ngay benn benn benn benn benn benn xar bu góor. donc xam nga foofu liggéey bu liggéey bu am solo léegi nag la nga leen def. Hmm. naka lay def parce que suñuy ñàkk ñëpp ñàkk. kooku c'est un défi nga xam ne su fekkee dund ñàkk dina deeteel gi da wàññeeku. naka lay def également ba nit yi mën yi xam ni euh, état bi teg naka pour dimali ñu jël ko liggéey par exemple tey jii xam nga ni def fii ñëw ñu rek daara taxaw ni ah du ñëw def seetu. Mhm. non dafa am lu ko lal mooy duñ jëkk toog xalaat donc invité organisation éleveurs yi invité banque yi invité nu mu tuddati yëpp structure ay fonds sis DER ñi nga xam ñi yëpp ñu nekk ci investissement mhm. ñoom ñu waxtaan lan lañu mën a jàppale les gens en général ak càmm ji en particulier donc bu ñu fa jógee waxtaan lu mën ñaari fan ak élevé bu lu tënk donc loolu fa tënk également fàttewoon naa ko wax si topp lool du koy présenté président di ko ah daal forum bi nañu lii ak lii ak lii. d'accord genre rapport lay doon wala recommandation. waaw waaw ay recommandation ni que ak lii sax ko def mu daan def loolu. Mhm. donc loolu moom mooy tax peut-être jéego yi ñuy Sénégal def ñu gën yokk parce que da nga gis meew mi mi ngi yokku. tey jii par exemple fi ñu nekk ci daara gi am na ay xale yoo soo fa gisoon ñu ne la fromage ñoo ko defar da nga naan non parce que moo fromage nekk ci ginnaaw surface benn la. Mm-hmm. mooy présentation bi naka la def ba loolu ce travail là artisanal ñu mën ko def. de manière industrielle loolu da lay xaalis xaalis boobu xëy du éleveur moo ko mën def mais le secteur privé ñoom ñoo a boobu. ainsi de suite soo demee loolu du filek du daara soo demee Kolda ay jamanuuta am na am na ay centre ko yi nga naka la ñuy def ba a donc c' bañ rek jëm produit. Mhm. produit dafa yàpp dafa soston comme ni ko yi yi ñëw yëpp war nañu ko mën produire fa te loolu day créer emploi mhm. donc yi nga xam ne il faut ñu liggéey ci jot ne yooyu ngeen fas yéene jël taxawal ko ngir ñu gën a yeesalaat euh, maanaam politique euh, élevage au Sénégal. léegi ñoo ñun ñu wax moom mooy outil yi tamit kay ñu ne ba hmm. xiir ci nit yi. ba ñu mën ko. ba ñu mën ko jëfandikoo ñu loolu. waaw encouragé leen ba ñu mën ko pousse leen ci. moo ma tax dafa doon tey donc pour investir et élevage ci duggee. Mhm. lépp luy xeetu projet. lépp buy information mi ngi donc lu ko def nga xam ne en permanence ci informatique ku nii nga soo demee bon waxtaan ñu tural les informations nga def projet boobu ñu dugg nga nga secteur donc mhm. loolu ci forum bi nañ ko nañ ko créé donc je xam que. Mhm. ni y nga am na si quoi bi xam ne c'est un dynamique. Euh, tey euh, comme ni ma la ko laajtee tout à l'heure ci wàllum euh, élevage kon mën nañoo jàpp ne Sénégal lii di élevage am na fi avenir. non non Sénégal bon c' avenir Sénégal kay bon élevage bi mi ngi dox quoi. vraiment mi dox mais waaw dox. Mhm. mais xëy na il faut ñu gën a yokk jéego bi parce que day xam nga lu ñu wax li meññ Euh, di reproduire comme ni ñuy reproduire léegi hmm. naka dañuy def ba yokk jéego reproduction nga xam ni suñu ak nit yi nu mën a reproduire également dina mën li ñu soxla ci lépp ak même mu génne ko donc loolu mooy tey jii ñun euh, problème bu ñu am bi naka lay def ba mu gën a jur. gën a jur googu mën a gën a dimbali parce que c'est que da nga xool bon nag juróom nag pratiquement juróom-ñeenti weer lay ëmb bon xar juróomi juróomi weer jàpp juróom benn ëmb lay ëmb mais il faut mu ëmb il faut mu donc loolu mooy suñu problème euh, mais je crois que c'est que duñ fexe ba netteel gi moom wàññeeku c'est que duñu ñàkk ñëpp ñàkkandoo je crois que dina dina wàññi lu bëri ci ndeetal soo rek dina am bëre loo xam ni dina ko couvrir donc daal loolu la ñuy woon ni di année bu nekk nag état bi def quand même ngi ci mm-hmm. donc daal ñu vacciner wax paymètre contre di beneen bi ñuy wax bi dermatologie ak même même fas yi pour fexe fas yi bañ a dee donc loolu yëpp ñu ngi ci léegi nag lu wax la mooy gars yi dimbali ñu su fekkee ne ñu ñu ñu ñàkkalu mais ñàkk boo xam ne ay il faut nga ñàkk il faut nga kii kooku day xaw jafe dem ba ba pare état bi ci li ñuy benn lyophilisation marmite boo xam ne day togg ñàkk nga xam ne un milliard cent cinquante def ko ci labo aan rien que pour mu produire togg vaccin yi nga xam ne daan ko soxla. Hmm. donc daal ñu ngi woo campagne bi yàgg bu yàggul bi tijji na ko fii dolli ministre Aly Saleh Diop donc naka la def. ba loolu ñëpp dugal ci ku am xar am bëy Dakar yow soo soo amee nga génne euh, sensible ñu aar yëpp daal donc wala à peu près pour xam tam ko. et justement ngeen ah. nekkoon ci benn yoon. ci euh, hmm? yokk googu la ngeen nekkoon ci benn yoon yéen ñi waa gouvernement bi. 2016 euh, hmm? yaa ko fi wax sànq. ñu hmm? déggoon ci ne dinañ fexe ba Sénégal dootuñu àndeeti ay njur. Euh, andi ko Sénégal euh, tey fu ñu toll ci ci projet yooyu. waaw xam nga loolu laa ça veut dire que duñu loolu la ñuy mais Sénégal euh, mi état bi def na carré bi maire yi ñoo ci yëkkul seen loxo ñu ne ñoom. du ci dugal seen loxo 2016 ils se sont engagés devant le président moo tax jeune national bu ne élevage bu nekk dinañ wax président fan nañ ci tool hmm. déjà bi ñu ko waxee cinq nga 550 bu njëkk bi fanweeri commune dugal nañ ci seen loxo. Hmm. donc phase boobu jeex na ba ñu euh, ñu ko évaluer woon ko léegi ñu jëm ci deuxième phase déjà euh, deuxième phase de commune dugal nañu commune bi day jël dara ci budget dugal ni kii pour jënd ay euh, xar yu jigéen la. Hmm. pour ay jigéen yi nga xam ni jàppale leen wala ay jeunes. ñun ministère élevage li nga xam ni technique la. ak euh, ñuy wax géniteurs yi baax par exemple ay laaj ay toit bi ñu jënd ka. Mhm. jox leen ka gratuitement pour ko ñu mën euh, euh, gaawal reproduction bi ba pare ñoom ay xar yu baax euh, am na benn ONG bi ne ONG Aifa International ñooñu aussi ñoo jàpp ci li ñuy wax ingénieur social donc foog nit ba nga xam ne passage du don passage mooy suñu la joxee soo amee production nga jox keneen. Mhm. donc noonu lañ ko tëggee woon ci première phase mu dox bu baax fa incha allah yaakaar nañu deuxième phase bi dina dox. sànq yaa koy junj ah yaa ngi koy junj. Hmm? jëm ci hmm? production bi yaa ngi koy junj sànq. Hmm? Mhm. tey euh, li jëm ci production meew ak euh, ndawal gi ndax euh, mhm. mën nañoo jàpp ne am na amelioration parce que ay at ci ginnaaw gu yàgg sax daawoon nañ ne dafa gën a wàcc. non non man xëy na xam nga di lu ñu xamul man gënul wàcc li may moom mooy. production moom chaque année duñ da day yokk. Hmm. xëy na nit yi ñoom ñooy yokk seen besoin di yokk parce que nit ñu ma wax nit yi di moo gën gaaw parce que nit yi hmm. du ñuy toog mais ba xar yi bëy yi nag yi du ñuy jur du ba ñu ñuy faagaagal pour lekk. Hmm. mais euh, ça veut dire que sax bu xool ñu suñu ay statistiques chaque fois li ñuy rey day ëpp. meew de ëpp chaque fois mooy ëpp donc année bale mais naka lay def léegi ba mu couvrir ba mu couvrir ba nga xam ne lu may wax rek ndeetee gën a gën ñu gën a produire mais vraiment amul at boo xam ne amul tegu ci lu ñu def ci lu ñu defoon donc du wàññeeku day yokku tey jii sax da nga gis am am ni samedi bële passé rek par exemple ñu fi indi lu mat junne nag. ak euh, ñeenti téeméer mille deux cent soixante dix huit nag yu jóge France rien que xëy na yooyu ci dëkk yu tàng yi rien que pour dimbali ñi am ñi ferme ci wetu euh, kii bon yeneen yi nga xam ni euh, ñu ngi wax insémination artificielle métis mhm. également ñi ngi koy def loolu yëpp yokku la c'est que loolu mënul at bu nekk nga kay def mu yokku meew mi di wàccu xëy na nit yi ñoom ñooy yokk moo xaw a ëpp donc mais comme je dis il faut ñu utiliser technologie yi pour gën produit et je crois que bon ñi ngi ci quoi Hmm. jeexaleeg même mosul wàññeeku. Hmm? jeexaleeg sàccum njur gi euh, moo ngi gën di law te pourtant am na benn loi bi nga xam ne daf hmm? ko criminaliser loolu moom nan lañ ko mën a expliquer. waaw justement xam nga euh, euh, nu mu tëddi xam nga loi bi. duñ ko jël. ni bon du ñu criminaliser vraiment ku sàcc jur ñi daal daan gu daan gu gu gu gu metti. bu metti waaw xam nga daal aussi juge bi sax du ko daan gu metti. pour mu dal juróom jàpp fukki at il faut il faut moom lu ko leer naññ naññ naññ mm-hmm. léegi nag preuve bi foofu foofu la des. Mm-hmm. waaw xam nga preuve la naka lañuy def ba loolu leer moom moo tax ñu ne il faut que ñu organiser wu. Mm-hmm. organisation mooy déjà organisation éleveurs ñu def ay comité de de bétail de protocole nan la def ba yooyu gën a gën a gën a gën a a gën a njong. beneen bi mooy naka la ñuy def. ba nit euh, yi gën a marqué seen seen kii parce que am na. Mm-hmm. léegi nag li ci des mooy euh, président sax wala nga bu yàggul naka nay def ba waxtaan parce que du du ministère élevage rek. Mm-hmm. di ci lëkkaloo donc ak éleveurs yi. lëkkaloo ci ak euh, les forces de sécurité. ñu mm-hmm. mel ne gendarmerie lu mel ne poste d'engineer ak surtout la justice bi nga xam ne ñu doon dogal bu mujj gi nan xam kenn ku nekk lan mooy sa jafe-jafe ci loi bi su ko defee naka daan koy régler pour que loi bi mën a nekk voilà donc loolu la loi bi jafe mais application bi moo application bi jafe-jafe yooyu lan moo ci nekk incha syndicat ko moo je crois que foofu la justice amee un peu problème mais ñi ngi ciy donc aussi bien que vol de bétail boobu que encore conflit yi di yi am entre agriculteur éleveur je crois que même conseil euh, des ministres passé bi président joxe na ci institution comme daan ci liggéey quoi. d'accord ñu lay mm. jaajëfal bu baax a baax Mamadou Sakho. voilà.